moom premier ministre nag teewoon foofu daal yaakaar na ni lool moo di lool di dak yi domaine agricole communautaire yooyu euh, bu ñu ko defee lii nga xamante ni nag euh, moom moo di euh, mbëkk mi gone di ci ñàkk seen bakkan danañu ko jëlee ca diwaan ba ñu daal di koy teewlu moom Mohamed Boun Abdallah Dionne ci micro Adiatala au moment où nous vivons quasiment en direct un des drames les plus déroutants de notre époque où des centaines de jeunes, voire des moom euh, joriñ ju jëkk ji ngeen dégg noonu ci kàllaama kon euh, nasaraan ñu cay euh, jégglu wee ci xibaar yi jàpp nañ ne nag ci wàllu ko mbëkk moomu tàng yi ñu nimikuwaat ko gën ngaa néew ñaari téeméeri doomu yi Sénégal ñàkk nañu ci seen bakkan ci kon mer Méditerranée xibaar boobu directeur des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba joxe ko waxtu wi nag ci ñi nga xamante ni daal rëcc nañu ci ni nañ nimikuwuñu ci ku cosaano fii ci Sénégal Pape Cheikh Marja xayma sénégalais yi ñàkk seen bakkan ci suuxu bato bi doon transporter ay migrants ca tugal tàmbali na leer bato boobule juróom-ñeenti téeméer nit nekkoon ci juróom-ñetti téeméer ak lu teg ñàkk si sañ bakkan. mbir la boo xam ne ba tey euh, ñu ngi ciy liggéey pour mën a am information yi gën a wóor mais li nga xamante ne xam nañ ko tey moo di ko ñi seen bakkan def si géej gi ëpp na ñaari téeméer. déggaguñ ci sénégalais bu mucc même bu dee ne ñu ngi koy am yaakaar mais lu ñuy war a mën a confirmer la fii ak ay bés yu néew. fukki fan gannaaw bii la jéeya lañu am nag information officielle yu njëkk yi suñu sukkandikoo ci Sori Kaba bañoon a yàkkamti ci mbir yi rek moo ko waral. bu fekkonte ne tey bi jamono bi affaire bi amee sans pour autant ñu xam ñaata sénégalais ñoo ci nekkoon ñu dem ci suñu xalaat bu yomb mën nañoo juum te mën na def danger. li ñu war mooy booy wax nga wax loo xamante ne moo am ba suba kenn du la mën a démentir. ñu taxawal nag benn kuréel ngir mën a dajale ay xibaar ngir gérer affaire bi. comité bureau la mooy taxawu état bu Sénégal jox ko ay jumtukaay sur le plan information jox ko ay jumtukaay si li nga xamante ne tey moom moo war a nekk action yi ñu war a entreprendre pour mbirum immigration clandestine jeex ci Sénégal. ngir yombal liggéey bi nag siiwal nañ benn numéro téléphone ngir képp ku am ay information yu jëm ci mbir mi xamle ko autorité yi. jëwriñ dañu dénk wàllug euh, ndaw ñi moom Mame Mbaye Niang moom nag xam na ne daal euh, wax lim exact ci ñi nga xamante ni faatu nañ ci loolee dana jafe euh, ba tax na mi ngi sàkku daal ño ndaw ñi ñu daal di jàpp ci loolee mel ni lañu def ca Kédougou mu di kon domaine agricole communautaire yi mi ngi koo xamle ca ba ñuy inauguré dàkk bu Itato ñu teewlu ay kàddoom xayma nag dina jafe parce que xale ya cay dem. dañoo demoon ci euh, tàggu seenu njaboot ay at ci ginnaaw tey ci suba dégg naa ko ci benn rajo ñu wax ni que yaay ji yaayu ki ki ki ki ki ki gaañu nee na doom ji bi mu fi jógee léegi mat na ñaari at ak genn wàll donc jàpp naa ni euh, ak pexe yi ñu indi dina ko saafara waaye li tax ñu war a wax mooy xale yi bu ñuy dem mënoo xam ndax congolais la mënoo xam ndax sénégalais parce que dañuy jël seeni i kayit xotti ko ngir bañ bu ñu leen jàppee ñu rapatrier leen ca nationalité yëpp ñoo fay dajaloo nationalité yëpp ñoo fay dem donc problème bi problème africain la dëkk bu ci nekk bu taxawee ak kémtulaay kàttanam comme ñu ñi ñuy def yaakaar naa ni dootuñu ko jànkaarloo ci at yu ci at yu néew lu mu ci mën ci doon crise bi ci wàllu immigration ni ñu ko géré kii di Moussa Mbaye secrétaire exécutif euh, réseau international Enda Tiers Monde moom nag nee na kon euh, àndu ci euh, la nga xamante ni daal jàpp na ni dafa tardé moo di comité cellule de crise bi gouvernement bi taxawal ci gestion bi gis na ci daal rëq-rëq yu bari mu waxtaan ci ak Aminata Mbaré saw Mardia lu ëpp ñaari téeméeri doomu Sénégal njort nañu ñoo faatu euh, ci nofrage bi am fële ca Méditerranée bilan boobu nag ki ko xamle di Sori Kaba nekk directeur di sénégalais de l'extérieur kii di Moussa mbay di secretaire exécutif réseau international Enda Tiers Monde di ñaawlu doxalinu groupe Sénégal ci jëye joojule boobu ñun ñu ngi toog di seetaan pour nga xam ñaata sénégalais la dafay laaj ñu xaar benn fan ñaari fan juróom fan ci toq-toqal ñu ñuy wax loolu mooy wane ne ñun euh, suñu état suñu administration parewuñu pour gérer yu mel ni moomu jàpp ni yéextaay bi am ci ñu xam doomu sénégalais yi ñàkk seen bakkan loolu lépp nag moom mu jàpp ne day wane ni rek nguurub Sénégal pareegul ngir xeex ak mbëkk mi. ñu ngi koy ñaawlu lii metti nañu. mais ñun du loolu la ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk suñu suñu suñu avenir dañ leen di xaar ñu xarañ taxawal euh, loo xam ne bu amee rek dinañ ko mën a góolu. mu jàpp ni lu mel ni bu amee dañoo war a communiquer bu baax ngir ñëpp mën a xam fan la ñu toll. li ci ëpp solo mooy euh, ànd ak ñi nga xam ne ñoom la famille yi nga xam ne lor boobu ci ñoom la dal mën leen a gunge euh, defal defal leen tuuti. ñu gën a taxaw ngir jox ndaw yi xëy loolu dina tax duñu jël gaal yi bëgg a dem Europe waaye tamit dañoo war a taxawal politique migratoire bu wóor su ko defee africains yi ak européens yi ñoo ci waxtaan. meneenum ndox bi moom ah, ñam muy jege nee nañ bëgguñu ko muy wal diggante aw ni Cheikh Diop ah, jëm kon croisement bu Wakaam situation boobee ña dëkkee ah, ca bool ya nag ña nga koy naqarlu liggéey bi fan la ci mairie bi toll jëm nañ koo gëstu ak Cheikh Tidiane Dione ndox mu setul muy walla mi le ndox fépp lañ koy gis ba fi nga xam ne sax moom moo yoon bi jëm ci marché ba xet gu naqari lu ni sax moom moo sabab ba ñi nga xam ne ñoom ñooy jaar ci yoon wi ni ki tey dañoo mujj soppi yoon lu ni mel ñii di ko naqarlu. ndox mi neexul xeeñu te neexul jàll da ngay sangu ba naaj xam nga jàpp affaire yooyu romb ndox mi xam nga mooy loolu quoi. matin jusqu'à wax ak yow ndox mi laay xeeñu parce que fii laay waar. neexul si ñun waa Wakaam instant yi fii nii yëpp dafa salte amuñu fu ñu jaar mooy loolu ndox mi mu ngi xeeñ. maa ngi cherché pour xam fan laay awee amu fu lii mën na ni malade xale yu ndaw yi ñu ngi si quartier bi ñu ngi si dëkk bi. mën nañ leen indil feebar yu kenn xamul. ñun ñëpp la jaaxal dañuy jël euh, kii yi ndox yu bon yi di ko fi sotti moo waral canalisation bi muy fatt ndox mu setul daal di ànd ak mbalit di walangaan ba yoon bi jëm sax ci marché ba lu ni mel lan moo ko sabab. Euh, waa SDE seen mbànd bi nekk fii ñun waa Wakam mbànd bi lañ koy wax mooy seen fii ñuy denc seen ndox bi tey xaw ma dañ ko doon raxas xaw ma dafa am ndox bu ëpp bu si nekkoon muy génn. ndox boobu moo topp comme dañu am kanaal boo xam ne fa la ndoxu taw bi di jàlle foofu la ñëw dugg ci passage naturel bi mooy grille yi ñuy def ci booru tali bi bi mu ñëwee ba ci booru rond bi foofu xam naa dafa bouché aussi parce que population yi dañ siy sotti seen mbalit yeex yooyu ndox bi nag commencé di ball. lu lu ni mel nag waa Wakaam ñoom jot nañ koo dund ci waxtu yu bari laata sax ñii di waa mairie di indi saafara ci lu ni mel. bisub tey àdduna bi jagleel ko li nga xamante ni moom moo di euh, fecc euh, ñu gis ni kon nekk na fii ci Sénégal loo xamante ni ñu bari euh, ña ngi cay yëngu ñenn ñi nag di naqarlu doxalinu ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di fecckat yi ñoom artistes yooyu jàpp ni métier la rek ni yeneen métier yi reportage Fatimata Ba nga doon kenn wala boog ab groupe di fecc ngir am loo bëgg a wone ci sa aada ak cosaan wala boog bëgg a véhiculer ab message euh, fecc doon na lu am solo bu dee ki koy def jaare la na ko ci yoon. culture la ñuy def te culture boo koy wone amaana du feccu ñàkk fecc sénégalais la gars yi ni ñu ko doon defee dañ daan woddu ay sër yu bari nëbb seen cër. léegi culture boobu nag man moom laay doxee ba léegi waaw. xale yi macha allah léegi dañu mën a fecc dañu mën fecc ku ci fecc da ngay ŋaang parce que da gis ne dañuy def chorégraphie yu doy waar euh, ñun te ñun dañu soxla loolu ci suñuy spectacle. nasaraan si dañu dañu fonk artiste surtout fecckat. nga tànn béer yi moom du ñàkk dañ la ciy invité yooyu daan nañ fecc romb ay góor ñu ñuy sànni xeer ak. lu ne mais boobu ñun xamoon na lu ñu lu ñu lu ñu visé wax dëgg yàlla. fii ci Sénégal nag ñi ci ëpp bi ñuy door groupe la ñuy doon waaye ay at rek ci kanam ñu gis ne ku nekk dangay ber sa daara. groupe boo ci nekkee ba sentir na yow war ngaa mën a ber sa daara te nga dem ber sa daara gis naa ko mu logique quoi waaw. ku ne fecc ni musique waaye seetlu gi moo di ne léegi woykat yi kenn dàqu leen a fecc. Euh, ñun mënuñu dem sans fecc. te fecc tamit mënul dem sans musique léegi euh, ku woy te feccoo euh, bokkoo. woykat lu mu fecc fecc fecc fecc fecckat bee ngi ci watam sinon du dem. leneen lu ñu nemmeeku ci pecc mi moo di ne saa su ne nga dégg ci lu bees waaye itam col ko gi ñu bëri rafetlu wuñu ko. bu njëkkaan buñ daan fecc dañuy muur cër yi fecc fecc bu rafet mais léegi moom ak fecc léegi bi moom doy na waar daal. dañuy wane seen cër yi. mbir buy dem di évoluer ngay gis ay création ci biir nit ñëpp di ko def kon loolu bu nee du métier kon. ça veut kon ay naxaate la quoi kon loolu amul. ay fecckat yu mag ñu naw leen sax ci bitim réew senegal am na ko léegi nag seetlu gi moo di nekku jóg ne da ngay fecc ñi ci yëngatu te gëm ko ne jot na ñu farataal ko di sàkku itam ci autorité yi ñu gën leen a jox cër ak gëdd bi war ci seen liggéey. ay nasaraan ñoo xam ne ñi dëkk bitim réew indi leen fii ñu jàng ci aar loolu mu ngi jëriñ waa Sénégal kon il est temps ñu jàppale ñu ñun dooleel ñu. ngërëm ko moom euh, Fatimata Ba ak si kon ci dossier bi tey ji ñu jagleel ko wàll ko politique euh, xool kon diggante parti politique yi ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo di syndicaliste yi bari nag syndicaliste yoo xamante ni dañuy militer ci yeneen i parti ndax loole kon du am lu mu jur itam ñoo xamante ni ñoom dañu jàpp ni yem ci syndicat moo gën ndax daal bañ boo lëgee loolee ñu naan conflit d'intérêt mu di gëstu Chérif Diamardian diggante syndicat ak parti politique diggante bu yàgg la ci jamono ji la gën a indi wax bu fekkente ni dafa am ay njiitu syndicat yu bokk ci ay parti politique parti politique yi sax boo xoolee histoire mouvement syndical syndicat yi avant indépendance ñoom ñoo nekkoon à la base de la création même des parti politiques Senghor sax pour mu nekk président de la République dafa déggoo ak benn syndicaliste bu mag bu tuddoon Abbas Gueye. man PDS laa nekk am na ñeneen ñu nekk PDS mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekk ci yeneen parti même parti APR am na ci sama central. muy jamonoy CNTS nga xamante ni bàkkam moo doon participation responsable ñoom mos ñoo weddi seen ànd ak jege parti bi di parti socialiste. PDS PIT LD ak yeneen i parti ñoom it daan am ay syndicat yu leen jege. parti socialiste. cheminer ak CNTS ñu teg ko ci yoon yi dañuy ànd gañe ànd ànd ànd ànd yor nguur gi. ci grève laa dëkkoon parce que man maa ngi PDS te de 2001 à 2012 grève bu fi ma sa am rek man sama syndicat bokk na ci. yenn saa yi syndicaliste ak parti politique yi ànd bi ni ànd intérêt yi duñ bokk. ba tax na kii jiite FGTS moom munta nangu ab njiitu syndicat buy bokk ci parti politique. nu charte bi dañu ne euh, booy diriger FGTS da nga war a nekk à équidistance formation politique yi bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi ci nguur gi wala ñu nekk ci opposition bi mais teewul nga mën a am relation yoo xam ne civilisée yu normal ak bépp parti parfois inconvénient la dañ indi ay jafe-jafe parce que boo demee booy di revendiquer fekk sa parti nekkul nguur gouvernement. tout de suite gouvernement am dafay naan ñii dañ leen manipuler parti bi moo leen manipuler moo tax ñuy dem di kaas. syndicalistes yu bari ñoom dañoo jàpp ni xeex ngir njariñu liggéeykat yi faaw boole ci politique ba tax na débat bi ci diggante syndicaliste ak parti politique yi ba léegi mi ngi wéy ci jamono joo xamante ni front social bi jax na lool fii ci senegal teg si ci wàllu euh, yéenekaay yi li ñu xëyee ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. supporter toog xaar yàlla te xam ne jàngalekat yi réew mi kilifa yi réew mi yàq nañu njàngum réew mi leen observateur daje bi gouvernement bi gonte woon démb ak syndicat yi jàngalekat yi waroon caa wax waxtaaneek lu tegaat njàngum réew mi ci yoon nguur gi def jàngalekat yi bëgg gërëw yi dakk jàngalekat yi jàngiwaat saafara sa ñu doon séntu ci waxtaan woowee saafara sa amu daje ba daafal yokku joote ja juróom-ñaari ministre de république observateur nañu nguur gi indi na ko ne bu weesoo Mohamed Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal ak ñi nga xam ne médiateur bokk na ci ñu yàlla loon Elisabeth Bambassi Serigne Mbaye Thiam Mary Teuw Niane Mansour Sy Mamadou Talla Diène Farba Sarr ak Birima Mangara ñu toog ak e ko dajab bii kuloo waaye laata ñu fay jógee ba mujj na ci mbedd mi di ci ndàmpaayal dëkkuwaay di indemnité de logement yi syndicat yi fa ñu ŋànk la ñu ne ko tee dakk nguur gi gàddu aw yatam ne ku ko dagg mu dagg lu bonam Mamadou Lamine Diante bu Grand Cadre nañu ci biir observateur gouvernement bi doxawul ñenn nuy wane ne am na yéene indi ak dal ci njàngam yi wal nañu ko réew bu sàcc pexe njàngum réew maa ngi bëgg a yàqu lambaay ngay bëgg a ñaaw c'est presque foutu mi wi Yann Lour Bambassi mi ministre fonction publique ci xët mu njëkku bi ay kàddoom ci journal bi mu ne ñu fa jàngalekat yi kenn daa mënut seeni jàng nguur gi def na lépp lu mu mat léegi nag gannaaw ñoom syndicat yi ci tanda santé jëm na ku nekk jël say matuwaay yi populaire nañu nguur gi noppi na ci négociation yi pare na ca ndax nee na syndicat ci la ko grataatal fa ñu taxawoon la ñu taxaw li jafe-jafe yi seen digg gouvernement bi li tax waxtaan yi demul ci ngi dikkul mbay laar populaire nag ne moo di indemnité de logement yi di ndàmpaay dëkkuwaay ci loolee la ñu déggoo la enquête yi ne kay nañu waxtaan yu nguur gi gonti woon démb ak syndicat jàngalekat yi yëf ya demul dikkul daa takk impasse laas nañu nguur gi gàddu na yat ba fas yéene jëfante jàngalekat yi Abdou Latif Coulibaly ay kàddoom ci xëpp njëkk journal bi mu nañu fa su ma nguurug élèves yi ñoo ci am mat bu mat sëkk ni seen jàngalekat yi gerew ba noppi dem ci prix ba di jàngale ñoo ñee la yi di wër bu koy wër mi ngi ci xët mu di ko Sud Quotidien mu di ministre fonction publique ñun yan loor bambas journal bi ñuy syndicaliste ni ñu teñalee yëf yeeg ni ñu ko dëgëralee nguuru Sénégal fas na kanamam nee léegi dootu bàyyi dara mu set nay tàngate met loolee ñi koy bàkkoo di soldaar yi ñoom la le teemoo xëyee yéene bi ñu soldaar yi Sénégal yi nga xam ne nguur gi amoon na yéene yóbbu leen ca Mali ñu jàpp ca xeex ba foofee ne moo di chef d'état-major général des la xoolaatul anam yi soldaar yi nekkee foofee Sénégal dafa yóbbu ay soldaaram ñu fay dem di samp direct info di ñun ci lu nar a sànko Amnesty International gi ñu yéene kaay bi nañu mi ngi def kéemtalaay kàttanam ngir ñu daganal ak nguur jigéen ci réew mi journal bi nañu li Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba doon xeex li Seydi Hadji Malick Sy doon xeex loolee la waa Amnesty International bëgg a yàq ah, li baax ci réew feeñaat na ci Sénégal mu di barab bu ñu mën a amee pétrole le quotidien moo xëy xibaar bi gisement pétrole ak gaz yéene bi lañu am na ci diggante Ndar ak Kayar Cosmos Énergie gi nga xam ne ñoo koy liggéenti li ñu wax moo di moo di gisement di gën a rëy ci dénd Afrique de l'Ouest politique ca lay tàbbeek observateur xëy ñun ci ndaamal Kajoor mu di Idrissa Seck Idrissa Seck ak ni muy doxee ji yéene kaay bi a boo xam ne Idrissa Seck da natt ba mu doy sëkk mu soog di ko doxal Ousmane Ba di analyste politique ne waa l'observateur loolee dalul am xel des ko war di gis ci géopolitique bi ndax yóbbante gànkal ubbul làmb làmb ji ak sunu làmb Moodu Lo Moodu xarañ Lo gonek parcelle gi gonek rock énergie gi la sunu làmb xëy séqal waxtaan mu njëkk ci combat Gris Bordeaux ak Tyson nee na Gris Bordeaux mën naa indi faux bagarre moo tax Tyson bu ca bëggee génn Moodu nee na déglu Gris Bordeaux ba xam la koy indi la diggante Eumeu Sène la Balla Gaye def nay ko Modou Lo tajal na ko waa sunu làmb diggam ak B51 mu di bombardier le roi des arènes Modou Lo ne bombardier bu ëndee bëre fi la may fekk bu ëndee xeex fi la may fekk ñi naan bu ñu bëree ak Yaxya Jóob Yékini Modou Lo ne ñooñee dara taxul ñu koy wax lu dul ragal ne góor bu xasee mat juróom-ñett fukki kilo ak juróom lu nekk ci kanamam war na koo ñeme ñi ñeme dëgg nañu fekkante ci l'observateur photo bu raglu moo fa nekk photo taale ci teranga jaay na ko ngir mën a fajoo waaye yëf yi mujjul fenn li gën a daw yaram moom taala wilaan waxtaane ko wàllu observateur moor di nee na waa quartier ba ñoo yor dépense u këram ñooy cotiser di jox jabaram muy toog ngërëm la Mamadou Mouhamed Ndiaye ak mboolem téléspectateur yu ñu àndaloon benn waxtu ba léegi rédaction euh, Futurs Médias kon di leen jaajëfal di leen daje incha allah 19h30 boobu programme bi ci télé bi ni muy tëddee képp si caam ak permanence képp si ma lay nuyu. soxna Ngoné Ngom maa ngi lay fay bu baax a baax. yaa ngi yër feuille de programme bi ah? mu demee tey. waaw programme bi tey euh, ni ñu koy déroulé déjà am nañ benn invité euh, ancien maire de Dakar nga xam ne nag nekkoon na maire de Dakar en 1983 dinañ ko waxtaan ak moom euh, ba pare nag daal di dérouler programme bi wax li ñuy xaar ci événement bi yoo xam fi mu ne événement yi dafa jax dafa dafa dafa dafa lëmbe réew mi ndax événement groupe Futurs Médias yi fi mu ne nii moom mooy toj wane nga ko ci taxawaay <laughs> ko képp si caam léegi-léegi kon mooy ñëw ci biir euh, permanence niñ ko waxee incha allah euh, di leen ñaanal kon ngeen yen jàmm ak programme yi télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf